aaya ji tofu ci muy yaa ayyuha allazina amanu alaykum anfusakum aaya la jooj boroom xam-xam yu bari niñ ko déggee ak li tax a jug aaya ji xuutee na sayduna abubakar wax na ko daana dégg nit ñi di firee aaya ji nu xuuteeg ni ko yàlla waxee bis jot rek mu yëg ca kaw min barbe ne yaa ayuhan naasu innakum taqra'uuna haadihi l wa tad'uunaha gayra mu ne yéen de seen nit ñi yéen a ngi jàng aaya ji di ko tëral fu huuteeg fi ko yàlla tëral xamu leen la ca yàlla namm wa innama sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ida ra'aw munkaran fa lam yuxayiruhu ammahumullaahu bi iqaabin yonentu bi mu ne maa dégg yonentu bi ne aw nit de su ñu gisee lu bon ci am pénc wala ci am réew wala ci ab gox kenn waxu ci jéemuñ ko soppi yarab yàlla ba bu ñëwee ca ñëpp lay dal dana dal ki ña doon def dal ki defu defutoon te fekk dañoo noppi mu tofal ca ne kon nag def leen digle leen lu baax te jiitu ca ñu ngeen koy digal tere leen lu bon te bu leen ca kenn gis bu leen soppi waxi yàlla ji kon aaya ji loolu tekki na ne kon lu ko ñu bari déggee woon ak li ko taxoon a jug duun benn beneen xadis bi yonentu baa ngi wax sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yéen daal e, dégg nga inaa mu yonentu bi ne fekk fa yaqulu ahadukum alaya nafsi yonentu fa jàng aaya ji man dafay wax ne yaqulu ahadukum alaya nafsi wallahi la taamurunna bil maarufi wala tanhawuna anil munkari aw la yastacmilanna allahu alaykum shiraarukum fa yasurmuunakum suu al azaabi suma la yad'uuna xiyaarukum falaa yustajaabu lahum yonent bi nee na gëñ naa ki nga xam ne sama bakkan moo ko yore su ngeen fi nekkul di digle lu baax di tere lu bon yàlla dana jël ñi gën a yées ci yéen mu jiite leen di leen togg mbugal mu gën a métti seen ñi gën a baax ci yéen di ñaan yàlla te seen ñaan ya kenn du ko nangu tegg nañ ca di foo dem tey ñu gën a xiis rek ñoo fa jiite ci lépp nag lépp loo dem ci ji jamono place ba ka fa ñaareel boo ko seetee rek a gën a xiis la ci lu mën a doon nag place yoo dem ci ji jamono ñu gën a xiis rek ñoo ko jiite di togg nag ña ñañ gën a xiis luñ mënut dara jamono jii tamit sëriñ boo mën a yaakaar. da dem ñu ne la ko nangu ñaan nangam ak nangam taxal la ko ba sa xol bi fees boo demee tamit sa soxla yi du faju te jamono ji koo gis ñaareel am na lu ëpp téeméeri sëriñ bu jàqee woo kii dem fale weexal fale dara du ca faju lépp na këcc rek kon la yonent bi waxoon na ngi lu ko waral lu ñu ko yóbboo lépp nag mooy ñi war a wax ci ñun di digle dañoo waxatut ñu warta wax rek ñooy wax te ñu warta wax bu ñuy wax lu ñu warta wax la ñuy wax moo indi ak yàq su ko defee tamit nag kon noppeeg ñi war a wax dafay waral wax ak ñi warta wax wax ak ñi warta wax tamit dafay waral wax ak luñ warta wax te su boobaa li lépp musiba rek lay jur kon nag góor jigéen gaa ngi fi ne xus ne ñàpp ña war a wax déggoo leen ci naka noonu tamit fecc maa ngi fi ne xus ñàpp ña war a wax déggoo leen ci làmbu jaa ngi ci nit ñi summeeku digg bëccëg seen awra ya marqué wu ñuy bëree di ci teg ay millions benn ngoon cinquante million waxtu timis jël la am yooxu ya am doo dégg kenn wax ca kenn ku ne yaa ngi ca yoreb taalibe waaye ànd ak loolu lépp koo ci laal maamam mbaa nga laal ci sëriñam mu mel ni dañ koo xabtal waaye boo laalee yonantu bi mbaa nga laal diine yoonu kenn nekkut ca motax li cheikh oumar fouti waxon fa lañ tollu li kulli qatilin naihatin yanahnu wa laysa ala dinil muhaymini naihu ku de ku ne xam ku la joyal sa dej ba moy diine diine rek mo xam ku ko joyal ab dejam ñako warna joyal seen dej ba talatuñ ko la len tak tak fatte nañ ne diine len fal ñu top ñañ yaakar na ñoo len fal ba lola bu len laale buñ ci laale dara rek mu bëgg len ray bu ko defé nak bayyi diine mom kenn salut ko dara mu nga xamé tamit ci walu nguur lañu yëngatu lool laal ki seen nguur ga ñi ray la mbaa ñu tej la ci kasso gi waaye lu jëm ci walu diine boo ci waxee ñu indi laayik mënoo ca dara kon nag dëgg dëgg li ñu dal lu lu metti metti la lu ñu dal musiba mu rëy rëy rëy rëy rëy la te nag gis nga xeet ya ñu jiitu woon dara xalagut leen woon lu dul kilifa ya yore woon baat ya. ñañ yoreeloon baadiya buñ defee lu defuut ñu noppi ca duñ wax ba yarab yàlla ba ñëwee dal nga seen kaw alquran wax na ko ci nitu yonentu yàlla daawuda ya ak nitu yonentu yàlla isa ya moo tax mu ne lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisaani daawuda wa isa bna maryama dalika bi ma asaw wa kaanu yactaduuna mu tax mu ne mu ne kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu la bisa maa kaanu yafaluun su ko defee kon nag lii moo xalagoon nit yi daawu daña gis nga ko ba yàlla xaraamale ci ñoom rëbb samdi te ñoo ko teg seen bopp yàlla dogal rekk samdi lay jën yi bari dëkk ba def ñetti xaaj benn xaaj ba tere leen ba pare gàddaay wan leen gannaaw yàlla musal na leen di mucc nañ beneen xaaj ba ne ñun dee terewuñ rëbb ñun waaye ku rëbb bu ñu mayee maccaat ñi lekk ba yaram yàlla ba ñëwee ñoom ñëpp ñi doon rëbb mu soppi leen golo ki mbaam xuux ña noppi woon mu noppi ki ñoom noppi ga nag la gën a wér mooy dafa leen a mbugal kon moo tax yonentu bi daan wax ne inna awala ma daqala naqsu ala bani israil annahu kaana rajulu yalqa rajula fa yaqulu ya haza ittaqillaha wa da ma tasnau fa innahu la yaxilu laka suma yalqaahu min algaddi wa huwa ala xaalihi fala yamnauhu dalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qaidahu falamma faalu dhalika daraba allahu quluba baadihim bi baadin thumma qaala lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dawuda wa isa bna maryama dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkarin faaluhu la bisa ma kanu yafalun yonent bi ne première wàññiku gi dal banu israil kenn fa daan dajeeg moromam mu def lii daganut ca ëllëg sa waaja continué ca lam doon def mu ban mu ko waxut ko ca dara di lekk ak moom di naanandoor ak moom di toogandoor ak moom su ko defee nag yarab yàlla ba bam ñëwee dal ci ñoom ñépp kon yonent bi wax na ko ci beneen xadis mu ne ki nga xam ne dafa toog ci daytale yàlla yi li yàlla digle ma ngi koy def ba wut ca dara ak ka ca tab bi dafa mel ni ñu nekkoon ci gaal gaal gi ñaari étage la ñu nekk ci suuf ñu nekk ca kaw ñu ca suuf ne dañoo bëgg a bënn pour am ndox ñi ca kaw ne ñun dee laaluñ ñu suñu yoon nekkut ca ba gaal ga bënnee suux suuxaale leen ñoom ñëpp ñu xal ko kon lii fu ñuy defee lu bon ci dëkk mbaa ci réew ñu yor ak kàddu mën a wax pour mu di mu jugee koo fa ñu am doole yore état man ko faa dindi ñoom ñëpp ñu bañ noppi bu la yaram yàlla ba ñëwee seen kaw lay dal kenn du ca mucc. yarab yàlla ba na muy dalee ca kilifa ya yàlla leen xeñ nangu ñaan yarab yàlla ba na muy dalee ca kilifa ya yàlla dafay def ku leen gën a xées ku gën a xées jiite leen duñ ca mën dara teg leen loo xam ne mënuñ ca tus ba bu set ñu ñu watal waa yoo xam ne mënuñ ca dara su ko defee tamit ñële nga xam ne ñoo leen jiite moom yarab yàlla ba mooy am duñ jeexal dara mais duñ am dara fu ñu toll ñu ngi ci fitna fu ñu toll ñu ngi ci nattu lu ñu indi bu yàggee mu mu sàppee ñu indi at beneen booboo sàppee ñu ngi laaj kenn su la ñuy wër ba xëy dee yarab yàlla ba làqira ba nag mooy li gën a tàng moo tax alquran dafa ñoo digal wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkari ulaikumul muflihun kon li lu jar a bàyyi xel la kuntum xayra ummatin uxrija linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar kon xeet wi faw mu xam ñuy digle lu baax xam ñuy tere lu bon yonentu bi ne na guddi gi ma rañaanee gis naa aw nit ña ngay sisu seen tuñ ya ca safara sa yuñ ko tuñtu manam e, si soo waatee rek mu saxaat kula man maa na dina juróodu bala nam juróon a xay raxa yow yonantu bi mané ne malaa jibril ne ko ñii nag mu ne wa min ummatika dañ daan digal nit ñi lu baax fàtte sen bop di digal nit ñi lu baax duñ ko def moy kilifa ak sonde rek at nasa bil biri wa tansawna anfusakum lolu baaxut booy digal lu baax da ngay fexé di def terai téré lu bon timit da ngay fexé nga légui ko gisé ñu bari mënatu ñu diglé mënatu digle téré da nga gëna yées ñi ngay diglé ñi ngay téré su fi de naan bu fi kenn jaalo ya ngi war doomi jaalo so koy waxeeti bu fi kenn sacc ya ngi lek xal li jàmbur yi bu fi kenn jëwati te bo toogee sa sal bi wét jëw nit ñi bu fi kenn rambaaje te lool moy sa jikko bu fi kenn naan sàngara mbaa tuk te moy sa jikko so koy ti kon su ba kon nak kilifa ak sondel mo fi bëri deug deug ma ngay nital nit ñi ci zahir fekk ma ngay lak bopam kon digle lu baax tere lu bon mënta ñàkk mënta ñakk ci aw xeet moo tax aaya ji ñu bari nañ ko déggee woon ak li ko tax a jug du benn moom laa lay firil nii moo tax mu ne alaykum alaykum war na leen mooy alaykum taqoo leen alaykum jooju nag ismu fi'lu amar la moo tax mu ne yaa wàll lazina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran alaykum taqoo leen anfusakum seen bopp mooy wattu leen ko te taxawee lépp lu koy héenal laa yadurukum du lor leen man dala képp koo xam ne sànku na iza tadaytum ndéem jindeeku ngeen loolu nag mooy su fekkee aaya ji da nga koo jolal ne dafay wax ak ahlul kitaab mu ne kon yéen jullit ñi nekk leen ci lu baax fexe ba seen bakkan yi yéen ñu ngeen te ngeen di laaj galak ahlul kitaab buñ bañee ngeen xeex ak ñoom noonoo gi noonoo gi yéen leen tere dara waaye nag boo fi nekkee ak sa moromam jullit nii di leen digal lu baax di leen tere lu bon te jiitu leen ca lu bon la bu la ca kenn gis soo diglee lu baax tere lu bon nag jëriñut su boobaa nag nga door a doyloo sa bopp moom la hadis ba wax ci hadis boo xam ne saalabatu alqusa euh, dégg nga alqusani yi moo ko génne ci yonent ba mu ne laaj naa yonent bi yonent bi ne itamaru bil maaruf wa tanaaw anil munkari hatta ida raayta suxan mutaan wa hawan muttabaan wa duniyan muasaratan wa ijaaba kulli si ra'yin bi ra'yi fa alayka nafsaka rawaahul hakim yonent bi ne digle leen lu baax tey tere lu bon ba ta ngeen gisee ak nay guñ topp bànneex buñ topp àdduna ju ñu xëfal ci kaw àllaaxira kenn ku ci nekk sa xelam bopp doy la wali sa xelam morom su boobaa nag téewoowal nga toppatoo sa bopp rek fexe ba baax bu ñëwee nga boñe tamit sa yoon nekkatu ci waaye toog ni nag du ma lu baax du ma tere lu bon sama bopp doy na ma bàyyi sa jabar yi ñuy xeesal bàyyi sa doom yi ñuy wàccee tubéy bàyyi dëkk bi ñu lay déglu yow ngay ilimaan ji sa maamoom yi teguwuñ ci yoon ngay ab sëriñ sa taalibe yi di fecc ñii di sàcc ñii di agressé ñii di naan sàngara waxoo ca nekk ci am réew yàlla may la kàddu soo waxee rek lu lu fi teguwul ci yoon tegu ci yoon nga noppi yarab yàlla ba doo ca mucc lii la alquran wax kon na kilifa yi di waxaat ak ñi ñu xilif dëgg-dëgg teraanga juñ mën a xam diine ñu ko jox ndax moo ko joxoon suñ maam yi moo ko joxoon suñ bàyyi yi kon diine yooyu jox ñu teraanga buñ ko xeñ teraangaam moom tamit te mooy di ca xiirtal nit ñi def lu baax tere nit ñi ñuy bàyyi lu bon te loolu mooy rolu yonantu yi ودون رول رول كيف كو وار دون يونتو يي هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يدلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعلى لولا بوكو نهتو ديو بوكو تا دارا كون نانشي باي خيل ايه جي توفوتي موتاخ كون موني يا ايها الذين ايين غايا غا خامني بام واخه نك laa yadruku mënta la day isa tadaytum isa tadaytum nit ki mënta jub te fekk diglewul lu baax terewul lu bon day tadaytum ji rek sarta boobu mooy tekki ne digle lu baax tere lu bon mënta ñàkk mukk ci loolu lañ koy déggee kon yaa ayyuha allazina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran alaykum taqoo leen anfusakum seen bopp laa yadrukum du lor leen man dala képp ku sànku day tadaytum ndéem jub ngeen dégg nga de ilallaahi jëm na ci yàlla marjuukum seen delluwaay marjuukum seen delluwaay ilallaahi jëm na ci yàlla ilallaahi ci yàlla dong la jëm marjuukum seen delluwaay jamii'an mbir muy mboole seen fa yunabbi'ukum dana mu solo leen bi maa kuntum ci la ngeen nekkoon taxamaloon di ko jëf de dana leen ko fay de tahdiid la nag kon loolu nañ ci bàyyi xel aaya ji tofu ci mooy aaya ji gën a naqaree firi ci alquran mooy aaya ji gën a naqaree li araab ci alquran mooy aaya ji gën a naqaree ay maanaa ci ci alquran kooku ulamaawu tafsir yëpp d'accord nañ ci aaye la joo xam ne gu jëfee firi la ju jëfee li araab la ju jëfee teqarti ay maanaa la dama lay ñëk a teqatil maanaam mi rek do la ko firil ndax mu neexa a dégg ku ñuy tuddé tamim ibnu aws ad miyu, tamim tamim ibnu aws ad daariyu ak ad ibnu saydin ñom ñaar dañoo gennon jëm sham di xantu ji moy jamono gi wax ni xata shitaa wa sayfi ba ñuy dem nag booba ñoom jamono jooju ay nasaraan lañu woon ñu ànd ak benn waay bu ñu tuddee Badiil ñenn ñe ne Budaylu ibnu abi Maryama di Mawla Omar ibnu Laas yi moom nag jullit la woon kon ñett àndoon di tukki ñaar ña ay nasaraan lañ kenn ka di jullit ba ñu ñëwee ba saam jullit bi feebar xoolatut boppam. marchandise mi mu jëndoon lépp nag bind na ko def ko benn kayit nëbbu ko ci biir marchandise ma jël kayit ga dugal ko ci biir marchandise ma ndax ñaar ñii mu ànd ak xóoluwut leen ndeke li mu doon ragal yëpp mu ngi ci ñoom ay xorkat piir lañ ba mu ko dugalee ca biir marchandise ma wane ne kat télé ngi ci nangami télé nangami rajo nangami filisideer kayit ganal ñoom ñaar ñe mu àndatoon nak gisunu ko ndeysaanam nak mu ne len xóolatuma sama bop denk na len yeen ñaar sama marchandise mi yobul len ko ci sama mbokk ñu dem nak yobbu ko ba ñu deme ba yobbu ko ñoña vérifier marchandise mu mbokam ya gis ca genn keuyit ndeke keuyit gi kat moy bon wu mbooleem marchandise yi mu jëndoon mu ngi ci keuyit ga waaye ñee xamuñu woon ne kayit gaa nga ca ñam ko yónni waaye ñam ko yónnee ñoom gis nañ kayit ga bañ ko xoolee ñu gis benn bool boo xam ne ci xaalis lañ ko liggéey mandaxaam mi ngi tolloog ñetti téeméeri goros ñi booyaade ko ci wurus gis nañ tur wi ci facture bi waaye gisuñu bool ba ndeke ñoom ñaar ñooña kat di ay nasaraan di tamim tamim ibnu awsu addaari yu ak addi ibnu saydin ñoom ñaar ñoo jël bool ba sàcc ko dem jaay ko bañ ko jaayee junney diinaar lañ ko jaayee bool bu seer la gaay a xool gisuñu ko ñoom tamit ñi ñëw ci ñoom ñaar ne leen waaw suñu waa ji ndax marchandise sam moom jëndoon da caa jaay dara ñu ne ko déere sonn te jaay moom fa jënd rek avant ñuy hegg ca marché ba ba muy jaayat mu feebar ñu ne ko ndax xanaa feebaram bi dafa métti woon ba mu feree ca dara ñu ne ko non sonn feruwul dara feebar bi kay que benn fan la ko tëral génne ko àdduna mu ne kon baax na ñu ne ko ñu ñu ne leen ñun de dañoo gis benn kayit bu mu bindoon marchandise am mi yëpp bañ ko vérifier gis nañ lépp ba muy benn bool boo xam ne màndaxaan ñetti téeméeri goros lay tollook bool ba nag boolu xaalis la te ñu ngi ko booyaadee maanaam wurus loolu lañ ko gisut ñu ne ko ñun daal. li lañu joxoon ne nañ leen ko andil andil nañ leen ko suñu won ci bool suñu ci dara ha ciow ngi bëgg am legi nak ciow la bari ñu ne ko bind ko kon mi ngi ci ñu ne kon nak dañ leen dem kalaami lañ ci sayyiduna muhammad yoonu ba fi kondi, di moy limanu jakka ji moy moy moy commissaire bi bi règlement maanaam wala nga ne moy ministre bi wala walu justice waaye si euh, ministre la boo xam ne moom de lu àtte ju muy àtte yëpp maandu la ci boppam la koy njëkkee dool ko gàcc ci askan wa waaye tamit mooy euh, mooy généralu guerre bi lépp moo ko yore mooy ministre du yore affaire yi budget yi ko am problème ci moom ngay ñëw ah gaa yi ñëw ci moom pour àttelu yonent bi xoolu ñaari nasaraan yooya di tamim ak adiyu ne leen kenau leen gannaaw julik takusan nak la leen woo ndax waxtu woowu moy waxtu wi gëna mag ci lay malaaka yi di remplaçante ci leen ci borom xam-xam yi ndax timi moy salatul wusta hafizu ala salawati wa salatil wusta yonentu bi teewal leen ñom ñaar ne leen gëñ leen ngeen gëñ ne bol bi waji joxul leen ko ko ma ay hefe lañ gëmuñu yalla seen yoon ci ngëñ ñu gëñ gëñu gëñ ne wan waat nañ ci yàlla ne lii la ñu joxoon la ñu joxoon indi nañ lépp dara manqué wut ci lislaam saahir lay xàtte mu ne dem leen dem nañ ñu toog tuuti rek gis bool ba comme na ko ki génn àdduna bindee woon gis ko màkk ci benn waay dañ ko laajee foo jëlee bool bi mu ne tamim moo ma ko jaay ak abdiyu ñaata la la ko jaayee mu ne junney dinaar ñu jàpp na ñun jàpp nañ suñ sàcc ñun daal jàpp nañ la mu ñu dem ca ku jàpp ku jàppoon ak xale li sàcc ci ki nga ko jàppee ko ngay kalaame mu dem ci ña ko ko jaaye ñu dem ca moom nag ñu ànd dem ci yonantu bi ah aaya ja wàcc nag weer leen leeral lépp naññi kii nag ku ragal yàlla la tamim eh, fekk moom ndey saanam tuub na gannaaw si dafa tuub ba mu tuubee nag la ne alquran li wax mooy dëgg ñun dañ doon kàcc ci suñ ngëñ lépp perdu ci dëgg bis ni ki tey moom ci la jël juróomi téeméer dinaar la ci lekkoon mooy mu jëloon genn wàll ga dañ ko séddoo mu dem jox ko way donooy waa ji dem tamit ca xaddiyu génn na moom sonut ko fekkee mu dem ca moom tamit way donoom ya ne leen seen bàyyikat maa ngi moom tegoon nañ ab diil bu wutoon ci yoon ñu seddu woon ko junney diinaar la woon maa lekkoon genn wàll ga moom genn wàll ga fay leen genn wàll gi seen bàyyi dee na ñu jëkkati juróomi téeméer naar jox ko ko mu jël lépp yóbbul ko way ndonu yi seen mbokk moomu di bu deylu miñ bokkatoon ak ca yoon wa moo tax nag ñoom ñii nag bañ gëñee te fekk seen ngëñ la du dëgg gaa yi dem ba gis seen loxol ab sàcc seen bagage ya ñu indi ko kon dañoo war a gëñaat yonent bi ne kon da ngeen di gëñaat mu remplacer ñaari ngëñe ñële ñoom tamit ñu gëñ ba ñu gëñee rek yonent bi xàtteel leen ñe leen nañ fay ñu taxaw dem fay aaya ji nag wax ji yëpp loolu la bëgg a wane ne kuy dee boo ko mënee defal testament booy seedeelu sedeel ñaar ñoo xam ne gor lañ góor lañ maandu nañ commando nak moy ko xamne mukki na ci bakar yu mag yi te nuurut ci bakar yu ndaw yi kooka bu nekk julit mo gën motax nak su fekke da nga nek ci tukki nak ndax ñi di ko nekkoon ci tukki xamuñ kenn ku mëna na sédé bu ñëk ba lu ñaar ño xamne doon julit waaye alquran fol nako euh, mu ne wastashidu shahidaini min rijalikum min rijalikum la min amatut mom nak lay wax ci ni moo tax sama borom ne yaa ayuha alladina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran shahaadatu baynikum na seede seen diggante boo jëlee jumla ji jumlaay maanaam xabariya la waaye inshaiya la ci firi na seede seen diggante ida hadara soo xamee ne teewe na almawtu sababu dee teewe na ko ahadukum kenn ci yéen kenn ci yéen soo xamee ne sababu dee dikkal na ko na def seede ci seen diggante sababu dee bu ko dikkalee hinal wasiyati ci waxtu dénkaane wa badal la ci isaa ji su ko defee nag ñooña di seede isnaani ñaar lañuy ñuy doon xabar la xabari mubtada muñ fi xasafee la fa waxaat lim ñoo xam ne ñaar ji way maanu lay doon minkum yu bàyyi ko ci yéen aw aaxaraani wala ñu nekk yeneen ñaar dañ ko waxataf ci isnaani ja min xayrikum ñoo xam ne tukkee ko ci yéen bokku leen diine te mooy ñaari nasaraan yële ma waxoon la tamim ak addiyu in antum ndéem yéen a ngi tukki in ndéem yéen a ngi tukki antum yéen darabtum yéen a ngi tukki laa wax fil ardi ci suuf fa asaabatkum jot leen musibatul mawti musibaam dee su boobaa nag tahbisuunahaa da ngeen tëj ñaar ñële kañ min baadi salaati gannaaw julleeg tàkkusaan ale ahdiyu la gannaaw julleeg tàkkusaan ngeen leen di tëj ndax waxtu nangu waxtu ngëñ dafa am palaasam ngëñ am loolu saafe yu gëm waxtu tàkkusaan bokk na ci waxtu yi gën a màgg place ñu war a gëñee ca Kaaba ga buy foofa mooy fi gën a màgg buy Madina fa yonentu bi taxaw ca mihrabam ba bu dul foofa nag place bi gën a taxaw tedd ca jàkka ja rek muy mihrab ba foofu la ñuy gëñee su ngeen leen tëjee gannaaw julik tàkkusaan fa yuqu si maani nañu gëñ bi laay ci yàlla kañ ngeen leen tëj nag pour ñu gëñ inir tabtum ndéem sikki ngeen ñoom kat ci liñ leen wax te xam ngeen ñaar ñi laaj leen leen bool bi te ngeen gis ko ca bind ma te gisu leen ko ci ca marchandise kon sikk ngeen nañ leen tëj ñi gëñ su boobaa nag ñoom ñaar bu ñuy gëñ nañ wax ne la nastari duñu wattee bihi ci sama samanan njëg halal duñ ko wattee yàlla mukk li ñuy wax haduna duñ ko wattee yàlla li ñuy gëñ dëgg la su ko defee walaw kaana donte nekk na za qurba di borom ak nyale ñooña sax ka ñuy gëñal donte kañuy gëñ loo dafa nekk jege jegeñaale ci moom tamit na gëñ nañ ca tofal ne wala naktumu du ñu nëbbu shahadatallaahi seedeeg yàlla ci lim ñu digal moom la ñuy def de innaa ñun isan su fekkee nëbbu nañ ko la minal asimina bokk nañ ca way bàkkaar ña lii mooy xatteem ñu njëkk ña léegi nag fa in osra ndéem yëréef na gannaaw gëñ ak ñaar ñële te ñu gëñee ci xanam gii ñu ñu yër ne ala annahuma ci naka ñoom ñaar istaxaqaa xeya nañ isman bàkkaar mooy fen nañ ci seen ngëñ la ndax xor nañ lii ñuy wax lépp tëj nañ leen gannaaw tàkkusaan gëñ nañ te fekk dara amu ci ndax kat gis nañ càcc ga ci loxool kuñ ko jaay ñoom ñaar ñu mujj nag war koo toppaat kon bu boobaa nag ñooña bala ñoo jot ca alal ja fa aaxaraani ñeneen ñaar ñooy ñëw dafa xabar la ñu ñu xasaf mubtada ma yaqumaani bu la neexee nga def ko muy mubtada fa aaxaraani ñaar yaqumaani ñoom ñaar danañu taxaw jumlaay maani mooy xabari aaxaraani ñooy taxaw maqaamahuma taxawaayu ñaar ñu njëkk ña mu ne lisina ci la ci mbir moom ci laa la moom mbir moom ña nga xam ne istahaqa xëy na alayhim ci ñoo ñoom al la yaa ne ña gën a xëy ñoo gën a xëy su ko defee maanaam euh, ñoo xam ne xëy nañ te mooy lam ca namm mooy woy donnu ña ba mu ko waxee nag mu batal ca ne la yaa ni ñaar ñu gën a ñaar ñu gën a xëy laa wax mooy ña gën a jege fa yuqsimaani boo ko defee ñu gëñ billaahi ci yàlla ci xor ñaar ñële ne la shahaadatu naa suñ gëñ gii moom de a axaqu moo gën a xëy moo gën a dëggu min shahadati maa ci seen ngëñ nga ñoom ñaar te ñu ngi xam ne ne wa maxta day naa jalgati huñ ci suñ ngëñ gii walis dëgg de innaa kon isan su fekkee dañoo jalgati la mi na faari mi na bokk nañ ci tooñkat ya de yàlla nag tofal ke ne zalika xatte boobu ñu xatte te mooy delloo ngëñ ya ca way donnu ña aqrabu moo gën a jege an yaatoo ci ñu indi ñoom seede ya maanaam bi shahadati teg seede ga xalaa wajiha ca xanam ga ca nam demee ca xam aw tamit moo gën a jege ah maanaam ah, moo gën a jege yaqaafoo bañ ragal antura daba delloo ay maanul ngëñ da ay maanihim gannaaw seen ak ngëñ ya su ko defee nag wattaqu na ngeen ragal laaha yàlla wasmahu ngeen dégg li mu leen déggal dégg ak nangu wallaahu yàlla laa yari du gindi alqawma nit ña faasiqin nga di way gën topp aaya la joo xam ne ju naqaree firi la waaye ju naqaree li'raab la ndax li'raab bi dafay xam ne wuutee ñi dañ lii dañ ne badal la ñi ñi la ñu def ko nu mubtada lii léeg la ñu ne wutee ñu ne xabar la kon ay wax yu wuutee mooy nekk ci aaya ja ci kenn ku nekk na ko déggee waaye daal li ma la njëkkoon a wax rek moo ca ne ñee gëñ nañ te fekk seen gëñ nga war a ko lal ñii gis nañ seen a am marchandise ci loxol ab kuñ ko jaay delloowaat nañ ci yoon yontu bi ne du ma leen ko mën a jox nag di àtte ci yéen dëgg lu dul yéen ñaar yéen ay gëñ seen ngëñ nga mën a neenal ngëñu ñu njëkk ñu ne xam ne teguwutoon ci yoon bu loolu amee rek ma delloo leen mbir mi ñoom ñaar bañ gëñee rek yonentu bi àttee bañ àttee nag kenn ku ci nekk dem fay kii fekk na dee na way ndonom ya ñoo mujj fayal ko fekk moom ma ngay dund mu yëkkati juróomi téeméeri dinaar ya tamit fayal ko kon noonu la mën a ngëñee yàlla ne nag gëñ googu euh, ñi war a ñëw indi ko mooy gën a jege ci mooy gën a jege ci seede yi ñi mën a digal mbir ma ca nam demee waaye tamit dana nekk moo gën a jege ci ñaari ñii nga xam ne ñooy ñaar ñu dénkoon ñi nga xam ne mooy gën a jege ci ñoom tamit ñiy delloowaat ngëñ gi delloo ngën gi ci kilifaay néew bi nga xam ne dañuy gën a mën a gëñ ci xorom ñaar ñu njëkk ña te xam nga loolu dana nekk seen ak gàccewu te dana dana waral tamit ñi war a fay loolu kon mooy gën a timit ni gën a mën a gën a gën a gën a mën a jub moo tax mu indi ñaar yooyu def ko nag su ko defee kon nag aaya jàngook ak li nga xamee na ni làmboo na ko tabaarakallaahu moo tax kon aaya la ju yéemee yéemee aaya la joj timit ju naqaree firi la kooku kon moom la yàlla wax ci loola xatte ko ca su ko defee ñee dem jël seen xalal jàmm na ñooy kenn ci ñoom amul problème ca moromam ma aaya ji nag soo ko doon lixraab pour mu gën laa mën a jege shahaadati baynikum jooja ma wax la xabariya la ci mbindin ak ci jàngin waaye boo koy firi danga koy firi firim maanaam insha iya shahaadatu bayn shahaadatu baynakum mooy na seede seen diggante na seede muy incha iya waaye doo wax ne shahadatu baynakum seedeeg seen diggante def ko muy mu tadda déedéet na seede seen diggante ngay wax su ko defee nag shahadatu baynakum baynikum kon incha iya lay doon su ko defee euh, euh, dégg nga bam ne yaay wàll si na amoon shahadatu baynakum idaa hadara ahadakumul ahadakumul mawtu ahadukum mafaol la mawtu ji mooy faayil ji mu jiital mafaol mi mu jee faayil ji mu jeex ida xadara ahadukumul mawtu mawtu ji tamit doo ko firee dee mais da koy firee sababu dee ndax xas dee mënutoo joxee ti ndénkaane mu jeex su ko defee nag aaya yi lim wàkki ci ñooñu moo tax mu wax loola mu continuer aw aaxaraani ji دنج كو يعطف تي اثنان جا اي شهاده عدلين اخرين من غيركم اي من الاجانب او من غير اهل دينكم واي لول فول من غيركم حمتو ناخ كات هو اشهد سوى عدل منكم اك واستشهدوا من رجالكم نيوكو فولي دا لول كون ان انتم ضربتم ان ضربتم انتم ضربتم لهون محاسف انجي جواب جا مانام شرطه با شرطه in in daraptum la won antum daraptum do rañu wat tahbisunaha istinaf la wax dafa ci commencé ñen ñene deret dafa tontu dafa nek di jawab ci sharta jo xamé ne nii sharta ya adala bi ka annahu qila kayfa nasnau nu muy def tabna buñ sike euh, mu ne kon nak fa qila tahbisunahu tahbisunahuma kon da ngeen leen di tëj comme da ngeen sik lam gi nek ci min ba'di salati kooku tamit la muaddi al khariji moy min al salaati alasri gannaaw lek takusan demet nun nga koy topé ba lepp jeex la nastari bihi samanan qalilan amna ñu ne jawabu qasam la ñen nga ne ma'tuf la ci rek ci ci ci ci ci sarta bale bu jëk ba inu sabtum ji kon aya jangok motax sama borom ne ya ayuha alladina ee gaay nga xamne aamanoo gëm nañu alquran shahaadatu baynikum na seede seen diggante ida hadara su fekkee dafa teewe almawtu sababu dee ahadukum kenn ci yéen xiinal wasiyati waxtu dénkaane la laa wax badal la ci isaa ji na ko seede seede ya nag isnaani ñaar la doon ñaar ñooña sawa adlin ñu ñaari way maandu lay doon min yu tukkee koo ci yéen nekk ay jullit aw aaxaraani wala yéen wala ñeneen ñaar min xayrikum ñoo xam ne nii bokkuñ ci yéen bokku leen diine indem yéen a ngi tukki antum yéen laa wax darabtum tukki ngeen fil ardi ci suuf fa asaabatkum jot leen musibatul mawti musibaam dee su boobaa nag comme da ngeen a am sikk ca gaa ya la njëkkoon a seede ca ca ca ci seen marchandise mi kon nag andi leen ñaari seede ñoo xam ne. bi taxbisuunahaa da ngeen tëj leen mbir moomu da ngeen tëj leen min baadi salaati gannaaw jullik tàkkusaan su ngeen leen tëjee fa yuqsimaani ñi gëñ billaay ci yàlla inir tabtum ndem sikk ngeen laa wax fa mel ni dafa jël dafa jël li waroon ko inir tabtum ji waroon a jiitu ci sarta bi bu sikk amee rek tëj leen oo leen ñaar ñi gannaaw tàkkusaan ngeen téye leen gëñ loo leen loolu la wax ñoo ñoom tamit bu ñuy gëñ nañ wax ne laa nastari dañuy ñu wattee bihi ci yàlla sama nan njëg maanaam goo xam ne mooy mooy yàlla duñ ko wattee marchandise du ñuy wax dëgg la ci ñun walaw kaana doonte nekk ña te ñuy seede daa qurbaa di borom ak jegeñaal tamit na ñëw seede nañ wax tamit ne wala naktumu du ñu nëbbu ñoom seede nañ wax ne du ñu nëbbu shahadata laayi seedeeg yàlla innaa kon de isan su fekkee nëbbu nañ ko la minal aasimiin bokk nañ ci ñëwee bàkkaar ñi bu ñu waxee lii ba pare nag fa in usrin ndéem yëréef na xalaa annahuma ca naka ñoom ñaar ànd ak lii lépp ñu wax istahaqa xeeyoo nañ isman bàkkaar ci xor nañ ci wax nañ lu duhu dëgg gëñ nañ ci ci ci lu duhu dëgg fa axaraani ñaar yaqumaani ñooy taxaw maqaamahuma seen taxaw seen taxawaay ba min allazina ci mbir moo xam ne ci laa ñu nga xam ne istahaqa xëy na xalim ñoom te mooy way doon ña aw la yaani ñi nga xam ne laa wax ñoo gën a xëy bada badal la ca su ko defee fa yokk sumaani ñi gëñ billaay ci yàlla ne la shahadatu naa suñ seede gi mooy suñ ngëñ gi axaqu moo gën a dëggu min shahadati yi maake seen ngëñ ga wa maa taday naa ci ñun jalgatiwuñ innaa su fekkee jalgati nañ isan boobale la mina zaalimina bokk nañ ci tooñkat ya de lii mooy aaya ja